Lesson 5 Vocabulary 2 Table A table Six A chair Bunt A door Palantir A window Estilo A pen Crayon A pencil Carne A notebook téere a book sac a bag craie chalk tableau chalkboard palaat a plate kuddu a spoon paaka a knife bale a broom lal a bed mbaj a blanket, darab, a bed sheet, ndes, a mat, yere, clothes, simis, a shirt, tubey, pants, ay dal, shoes, welo, bike, lunette, eyeglasses, ndox. water, attaaya, tea, café, coffee, meew, milk, suukar, sugar, xorom, salt, ceeb, rice, jën, fish, yàpp, meat.